Mboki Julidi, Mboki FKR Mani Mbirengok, ramadan avec FKR oui ramadan ak fondation Karasour, alayhi toi salam. nous ñu le Mohamed Cheikh président de la fondation Karasour, l'auteur du livre Le Sauveur Mani, émission bu nekk tafsir al ñan Nyan imam Abdoulaye Mbaye ak imam Khadim Sen, nous facilitons invité Pape Anne Bouté FM, Mohamed Mbaye bu TV ak yeneen Oussaz, ak Yudex fondation Karasour, alayhi toi Duni du ñu yem invité ay célébrité di leen laaj ci seen autorité musicien Bassiste sportif. sportif du kenn waaye Ramadan FKR dinañ si les nabiens de la fondation que Rasoul alayhi salaatu salam. ku si Rasoul Mohamed Alla Diop Pape Mboup bu Serigne Saliou Souleymane Nabien Ndiaga Rasoul Bachi Alay Rasoul ak yeneen nabiens. Boussinek. nabien émission dina am invité notez et surtout retenez di nga ñu suivons suivre sur TikTok bindal c'est mat c'est M-A-T 92 99. Abonnez-le, c'est à Sur YouTube, Eleven News TV, Instagram, Limamati SN, Facebook, dakar92.com ak A À partir de 23h, Mani, 11h si de lañ koy Sponsor officiel, Livre le Sauveur, Dynamo, plein de cadeaux. Cheikh Mohamed Abdallah Thiam Nabi alayhi salatu wassalam. Fondation Karasour ñoo al al korum Djam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa you know.